dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo woppi coronavirus daat nay defati musiba ma ba kumba ci réewum Sénégal ndax daat nay am keneen koo xamante ni daat na koy fàtt maanaam mu nekk juróom benneelu nit boo xam ne woppi coronavirus ji daat na koy rey ci diiwaanu Sénégal yéenekaay gi di réew mi ko quotidien mu ñu xaman la ñu en tout cas li am ba des daal mooy fagaru moo gën faju mbir mi nag am na foo xamante ni bu fa tollee dina ëppi loxo bu boobaa day fekk bëy way mbuusa journal bi nee na niki démb rek lu toll ci fanweer ak juróom ci ay nit amee nañu woppi coronavirus waaye nag Pikine Touba Goudiri Guédiawaye Ziguinchor ak Mbao mbir ma nag ma nga fay law yéen kaay gii ko di Quotidien moom mu ñu xamalaan ñu Touba kay jamono ji dafa menacé wu jëm ci ab confinement Goudiri lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñoo fa amee woppi coronavirus loole nag moo jaaxal askan wa nga xam ne ñoo fa dëkkee tey jii sax professeur Moussa Seydi dana dem ca diwaanu Goudiri yéen kaay gii Libération mu ñu xamalaan ñu woppi coronavirus ji gars yi bàyyi wuñu ko xel waaye nag ci Ndakaaru rek ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay nit amee nañu fi woppi coronavirus journal bi mu ñu xamal lan ñu lu toll si ñetti fan rek am na ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ba tey ci biir yéenekaay gi de La Tribune moom mu xëy di ñu xamal lan ñu Covid 19 bi ak koorug ren gi dina nekk loo xam ne dina metti lool ci askan wi ndax nag jamono la joo xamante ni marché yu bare bare dañu ko daal di tëcc ñenn ci askan wi ñemewu ñoo dem ci marché yi ak couvre-feu bi nga xamante ni jamono ji moom la ñuy amal ci réew mi ak poche yi nga xamante ni dara nekku ci maanaam askan wi yoruñu xaalis ak ak cas yi nga xam ne mooy jàbbaa jonge ci réew mi lëmbaaje xelu askan wi moo tax journal bi ne koorug ren gii dal dina bëri ay jafeñ-jafeñ ci ñenn ci askan wi waa ONG Jamra ñoom ma Makhtar Gueye di sàkku ci koor gi ñu ubbi li nga xam ne mooy jumaa yi enquête yéen a kaay xëy dikkal ñu nag ci cas communautaire yi nga xam ne mooy jàbbaa jonge ci réew mi tax loolee ëlëm ñenn ci askan wi gars yi nag ñoo ngi woote ngir ay test massif yéen a kaay promo consulting bi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu kuréel gii di frappe France ngir ñu amal ay test massif ci réew mi l'observateur xëy nag daal di jokkoo ak benn xale bu jigéen boo xam ne dañu ko daal di quarantaine ndax dafa am benn mbokkam bu amee woon covid 19 moom nag ñoo ko confiné ca hôtel Ngor Jaaraama nee na ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji musiba ma ba kumba gu rëy la ñuy dund ndax otel Ngor Jaaraama ba ñu ñëwee dañoo fekk mu salte loolu amul kenn ku ko nettoyé te na nga xam ne moom la ñuy dundee jafe na amul kenn koo xamante ni jamono ji ma ngi leen di saytu ba tey ci biir journal bi daa danay leeral na dimanche bi ñu génn am na sax koo xamante ni ci fenêtre bi fi la naroon a jaare génn ñoom jamono ji ñoo ngi mel ni ñu nekk ci kaso yéenekaay gii di grand place xëy nag dikkal ñu nag ci luuma yi nga xam ne dañu koo daal di tëj te Sénégal jamono ji bu ñu déggee kàddu yi Macky Sall yëkkati dafa mel ni nag ci ab confinement la ñu daal di jëm dund gi ñuy séddale par parloo gi nga xam ne moom lañ ci nemmeeku moo tax journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi maanaam monde rural bi soo moytuwulee ñoom beneen feebar la ñuy am feebarub xiifa yéenekaay gii di Vox Populi ñu fekk kuréel gii di aar sunu moomeel nee na nag gouvernement bu Sénégal war naa bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk nekk ci kaw gi ndax sonn nañu rawatina ñi nga xam ne nag ñooy éleveurs yi ak baykat yi corona famine soo muy tuulee moo leen di dal yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal ñu Sénégal dajale na lu ëpp ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards Amadou ot ministre moo ko daal di xamle yéen a kaay gii de la Soleil mu ñu xamal ñu Union européenne ñoom nag dig nañu Sénégal lu toll ci téeméer ci ay milliards waa FMI jot nañoo joxe lu toll si ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay milliards laas yéen a na Macky Sall ji cëggul guyam lu mu deful daal en tout cas moom la neexa yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy nag daal di jàngat li nga xam ne moo xew Médina si xalim ak Assane Samb daat nay wax ne gouvernement bi amul benn nag yoxi-yoxi goo xam ne war na kaa wane ci ndaw ñi nga xamante ni dañoo xëtt li nga xam ne mooy ay ndigala waaye nag li am ba des jar naa saytuwaat bu baax a baax ndax bu ñu nemmee ko diwaanu Afrique du Sud am na ay ndaw yoo xamante ni génnoon nañu janoo ak takk der yi la ko waraloon dañoo dem ba nga xamante ni amuñu lu ñu lekk état bu Sénégal nag mën naa wax ne génne na lu toll si juróom benn fukk ak ak juróom-ñeent ci ay milliards waaye nag dund googee maanaam du dara doyul askan wi moo tax mbir mi jar naa jàngataata yéen kaay gii de laas mu ñu xamal la ñu ndaw ñooñu nga xamante ni teg nañu leen loxo ci diwaanu Médina te ñu toll si juróom-ñett fukk ak ñeent tey jii danañu daal di janoo ak procureur journal bi du Sud Quotidien ne Covid 19 bi li mu yàq ci àdduna bi bëri na waaye tamit li mu yàq ci réewum Sénégal daat ni takku loola ginnaaw bi mu confiné élection municipale yi législative yi lii nga xam ne mooy mandat Macky Sall bi tamit Covid 19 bi daat na kay xajamal ndax lu bari loo xam Sall naaloon na ko coronavirus bi daal di na koy teggi yéenekaay gi de Dakar Times na Sénégal nag su bëggee ñu baal ko ay borom il faut nag mu daal di dàq ki nga xam ne mooy Mansour Faye mi ñu dugal ci mbir mi te ay mbiram maanaam dara leeru ci maanaam Mansour Faye ci boppam moo war a démissionné yéenekaay gi de Les Échos moom li mu gis mooy ab njombe ab scandale boo xam ne dafa am ci contrat bi nga xam ne Makhtar Cissé signé na ko woon ba muy nekk Sénélec diggante Sénélec ak société bii di Akilee ak la nga xamante ni moom lañ say tudd marché ba ëpp na téeméeri milliards yéenekaay mu xëy ñu xamal nañu ca diwaanu Touba am na fa benn kilifa diine bu sant Faal boo xam ne doomam bu jigéen bu tudd Mbayang Faal dañu koo fekk mu daal di xaru yéenekaay gi nee na yaayam nag daal nañu koy teg loxo yéenekaay gi di sunu làmb xëy nag def ab taxaw seetlu akuk fàttali ci combat bi nga xam ne moo doxoon diggante Balla Gaye numéro 2 ak Yaxya Jóob Yékini ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2012 yéenekaay gi di Esat moom nag xëy di samp ab laaj di wax ne Tony Silva ak Mendy ñaari gardien yi kan moo ci gën a xarañ